quand ah, je xool li dafay gars ñaar ñii ñett ñii kii moo war a jàll ndax kii la waaw ñooñu dañu wax ku nekk fu mu jaar ak jaar-jaaram ak bëgg-bëgg Sénégalam ak fitam ak jomam ci nekk maa la mën billahi wallahi taala yi maa la bopp dafa jafe mm-hmm. mais ku nekk xam nga ku la mën nangu dégg naa ja Jasaaka di wéy lool ku la mën sa bàyyi man bàyyi ma yëpp du loolu sax fii la affaire bàyyi fii ku def ñu gis la waaye am say réseau de propagande am say réseaux sociaux am say yambar yoo xam ni tàppe ko ñu saaga la ñëpp tiit yenn ci ragal ñu di leen saaga ñëpp ñëpp aligné ba kañ ba kañ on nous mais on ne nous déshonore point tele est la devise de notre vaillante armée nationale attention Achtung nous ferons face et j'ai dit que je serai le candidat de la sécurité croyez-moi je le serai inchallah vous allez dormir sénégalaise sénégalais personne ne viendra vous attaquer Inch'Allah Rabbi, je prendrai toutes les dispositions idoines pour que la gendarmerie et la police fassent leur travail. pour que l'armée nationale puisse sauver le territoire national et l'État. Personne, dis-je, personne ne pourra troubler le sommeil des commerçants. Troubler le sommeil d'un citoyen qui ont leur boutique, leur cantine, pillée par des voyous se réclamant d'un parti et d'un leader malade qui n'aime que la guerre, que le choki, que le gatsa gatsa, que le mortel combat, que le chaos indescriptible si je ne serais pas candidat. Mais qui est le dañ ko war a caw duma ko bu naree tar réew mi ku fii ñëw pour kawo ñu kaw la kaw ngay def dañoo door nga daan la ngay kawoo Sénégal yàq Sénégal bu daanu kawoo indescriptible yow ju kawate la indescriptible nga xalanguñu abal abal mais le Sénégal moo ëpp El Hadj Diouf moo ëpp Macky Sall kan mooy nangu benn xale bu ndaw ñu day taal Sénégal yëpp sunu baay sunu maam lañ liggéeyoon sunu maam mataar sunu xalif sunu liggéey sunuy nijaay sunu yumpaañ ndax yow yaay kan wala yow yonente nga léegi na ba tax gars yi ànd ak yow xëy na pour delluwaat màkk pour nangu màkk yow yaay kan yow yaay kan yow yaay kan yow xamoo sa bopp billaahi xamoo sa bopp yow doo dara yow yow saytaane nga boo xam ne solo nga Sénégal foo jaar jàmm du fa jaar foo romb wala loo wax ñu lay ànd ak yow taal lañu réew mi yow loolu doy la nga daan demee bu ma nekkul candidat day am un chaos indescriptible yow yow yow yow fa nga nekk mënoo faa génne sa bopp yow xoolal sa bopp ndax mën nga génn fa nga nekk fa nga nekk mënoo sax tabaski ji mënoo sax ziyaare ji tekki woo dara ci réew mi nga taxaw naan buñ ma fal bu ma bokk yow fooy bokkee yow boo bokk loo mën a réew yow kenn loo mën a réew yaakaar yow fi nekk mënoo sa génn boo mënoon génn ña la loolu waa ji génne la vers cinq ñu génne la ay daw ay daw lañ fa jëlee de et dama nekk Màkka quoi di suivre affaire bi mu ne ah waaw waaw ndax la verset dañ koy jëlee ndax mu tabaski ndax fen yi dana teer tey lii da dee ko waxoon ñoo dàq daw ñooñu dama tudd tur kenn nag le 25 rendez-vous on va libérer notre camarade sunu waa jooju ñu téye injustement këram dañ ko jëli foofu kan moo ko fa mën a jël kàcc rek fan rek kàcc rek fan rek le maire Seck man et puis ma suivre presse bi quoi yi benn bi man suivre leen quoi ñu leen di jàppale may leer may may ree quoi ñu ne oui on était allé seulement rendre visite à ce garçon là on nous a empêché de le voir ce n'est pas ce qui s'était dit de dañëw dañ koy luqatu ji dañ koy daan foog kat génne ko fa waaye ma ñëw ñu dañu demoon seeri sa waay waaye may ñu soñ gis ko ma ne ñi ñoo mën a fen <laughs> léegi changé nañ version bi leader yi on était allé le voir mais on nous a même pas permis de le voir mais bi ñuy bi daan le 25 dañ koy luqati jëli mais loolu da woon pour seeti ko rek ça Sénégal di dox seen maay nii immédiatement ils sont changé de version ma toog màkk déglu naan way ñoo nous a même pas permis d'aller le voir ñu on était allé pour lui rendre visite ak ñoo mën a fen ñoom bi taxaw le 25 dañuy dem jëli sa waay ndax li ko teg du yoon dañ koy génne le 25 bi dàq rek ñu naan mooy ñu ngi sax ñu gis ko yéen da ngeen a bëri doole rek ana seen doole ji bala may dee naan bu bokkul damay taj taal dëkk bi yow loo mën taal yow génnal sa kër d'abord gatsa gatsa ku la téye téye ko ah da bëri doole bay attaqué eh, état attaqué président de la république lu la nekk yow sa kër mun a fa sa génn te nga ne yow boo bokkul taal dëkk bi yow taalagul dëkk bi boo mu ne taal dëkk bi léegi yow génnal génnal dem promenade yow jaaral demal tout de suite nii sa boutique bi jënd jënd rasoir ba watu yow rasoir ba watu sama na quoi rasoir boo xëccee sa kon man ngeen xam ni man kooku noonu man duma moroomam man ci dëgg lay woy mais pas ci ay di nax nit ñi di dox ci maay nu nit ñi mm-hmm. ay damay def monnaie locale mm-hmm. ay damay def lii ay damay lii ana monnaie bi léegi yéen waa Ziguinchor c'était pour rebeller que boo nee boo nee man damay def monnaie bu mooy bokk ànd ak Sénégal mm-hmm. kon képp ko bëggoo bëggoo paix bi nga xam ni jàmm ji Macky Sall indi Casamance rébellion rek nga bëgg dañ naan naa koo que dañuy ne monnaie bu bees ñu beral suñu bopp suñu alal bopp suñu économie bopp suñu réew bopp muy suñu dëkk bopp kii masul bëgg Sénégal parce que boo mën a xel di wax sax monnaie locale di wax monnaie nationale danaa changé CFA bi waaye sama damay beeru ak sama monnaie bopp bu ma bu ma faloo bi mu da koo mën kàcc rek kàcc kàcc rek kàcc rek <laughs> réew kàcc du réew mi ci dëgg rek la mën a dox pour avancer. billahi wallahi taala yi màkk laa jóge ku ñemewul dëgg àndu mag yow. man bañuma benn senegale mais bañ naa sénégalais buy fen dégg ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ne ko lu ne mu ne lu nekk ko def waaye bañ ne fen dafa jóg taxaw mënatul toog fen mooy bàkkaar bi gën a rëy ki ma gis ay politiciens ko ndeysaan fen rek lu ñu la fet la waaye léegi ana monnaie locale bi gars yi doo fen boobu rek laa jëlee ana monnaie locale bi bu ma faloo indi monnaie locale fen na ngi noonu boo xam du ma sori sax ba pare mu taxaw ni dañoo war a rey président yi fi nekkoon yëpp Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall dañoo war a rey moom rey rek moo tax je vais faire une proposition quand je serai au pouvoir incha à l'Assemblée nationale. On va criminaliser les attaques perpétrées contre les magasins et les maisons d'autrui. Désormais, quiconque s'aventure dans un magasin ou dans un domicile privé pour tal wala yàq, il sera déféré devant la chambre criminelle et condamné à perpétuité parce que lu tax képp ku dem di sàcc yore sa jaas wala sa fetal yore say ngànnaay pour jaay doole waa Auchan dàq ña nekk Auchan jël xaalis bi dañ lay tëj kiiri dund je vais proposer à l'Assemblée nationale une fois élu de voter cette loi perpétuité pour tous les agresseurs parce que agresseur bu ngeen wéetee mu rey la bu bu foqatee li nga yore mu bañ mu rey la jam la nga dee je suis juriste je vais faire criminaliser tous les actes de vandalisme incha allah rabi je vous le promets billahi saba va dissuader tous ceux qui s'aventurent à attaquer les maisons des gens qui a brûlé les voitures des gens à agresser à attaquer les banques les magasins Auchan les magasins de pauvres citoyens mais du fi amati je te je vous le jure mon combat sera inscrit sous ce registre de la sécurité Sénégal yi dañ soxla sécurité Sénégal yi dañoo jaaxle dañoo tiit je serai le candidat de la sécurité je veux être en tout cas le président qui sécurise tous les citoyens tous mes concitoyens doivent être sécurisés les gens doivent les gens doivent dormir normalement paisiblement aller travailler normalement sans craindre des attaques dans les rues dans les magasins mais pour lan lu xew subitement le Sénégal a changé de visage un pays de la teranga civilisé de qui devient un pays de bordel d'attaque d'agression de méchanceté de tuerie non halte il faut arrêter cela une fois l'insécurité réglée le candidat du progrès, Maître El Diouf, vous parle. J'ai eu la chance de connaître les trois pouvoirs. Et dans l'intérêt supérieur de la nation, la Constitution sera améliorée pour une effectivité de la jouissance des droits, des droits de l'homme, les droits du citoyen, Le citoyen doit avoir un toit. Chaque Sénégalais a droit au logement. Vous savez, notre parti, c'est le parti des travailleurs et du peuple. Chaque Sénégalais doit travailler. Le parti des travailleurs et du peuple, le PTP. Nous mettons l'accent sur le travail. Parce que seul le travail libère l'homme. Nous voulons que l'homme puisse, dans ce pays, s'épanouir. Que l'être humain puisse se sentir humain. Parce que il parvient à faire face à ses besoins. Il règle ses problèmes. Et il vit de façon décente. Mais pour cela, il faut une option qui renvoie à Lénine, à Marx et à Engels. à mes années de jeunesse, de communiste, il faut privilégier la classe ouvrière, moteur du développement. Sans classe ouvrière, point de développement. Qu'est-ce que la classe ouvrière Ce sont ces femmes et ces hommes qui se lèvent le matin, qui vont dans les usines, qui travaillent et qui rentrent le soir, si ces femmes et ces hommes sont majoritaires dans le pays, cela veut dire quoi Qu'on va fermer les magasins qui sont là-bas sur le boulevard Général de Gaulle, appelés centenaires, où on vend des pacotilles de rien du tout. Tout est acheté là-bas par nos braves commerçantes et revendu. Aucune usine sénégalaise ne fabrique ces pacotilles. Et pourtant, des usines auraient pu, comme le font les Chinois, fabriquer ces, ces, ces marchandises et les vendre moins cher dans notre pays. Même les chaussettes, les slips ne sont pas faits au Sénégal. Même les ceintures, tout est commandé. Les tissus, on peut les fabriquer ici. Rien, on ne fait qu'importer. Jusqu'à quand autosuffisance alimentaire nous avons suffisamment de terres cultivables j'ai été le ministre <laughs> des gens ont saboté du réseau hydrographique national Abdoulaye Wade mais deux points bassin de rétention lac artificiel cours d'eau et canaux latéraux Donc je te libère de l'OMVG, de l'OMS, de l'eau, des fleuves, des cours d'eau. C'était ça, vous dit, ministre des porte Et pourtant, Ablaïwad avait une vision. Mon, ministre, mon ministère était un ministère de développement pour changer le Sénégal. Parce qu'avec des bassins de rétention, partout, des lacs artificiels, à Kafrine, À Linguère, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mer, par exemple. À Tambacounda, il a pas d'océan, n'y a pas de mer. On met des bassins de tension, des lacs artificiels. Il y a du poisson déjà, ça permet aux femmes d'aller préparer le déjeuner, les, plats copieux. Mais mieux encore, des plages sont aménagées autour de ces lacs et des, des, des hôtels sont construits pour accueillir des touristes. dans des endroits secs où il jamais eu de l'eau. On amène de l'eau dans des zones où il n'y a jamais eu de l'eau. On met des, des plages sont créées, des poissons existent, des hôtels existent en face de ces plages qu'on n'aurait jamais soupçonnées. C'est ça la vision. Fekk fu amul dara. nga def fa dara. fekk amul ndox des zones arides vous mettez de l'eau des bassins de rétention des lacs artificiels des canaux latéraux l'eau jaillit les poissons se télescopent les plages existent les hôtels se dressent <laughs> un nouveau visage dans un milieu où il n'y avait aucunement une goutte d'eau c'est comme ça et ce ministère m'a donné beaucoup d'idées, des idées pour de permettre à des zones extrêmement hostiles à la vie humaine de se développer. Pour ça, je remercie très sincèrement le président Ablawad de m'avoir confié ce ministère qui devait changer le visage du Sénégal.